fondation siratal mustaqim di fondation boo xam ne dafa ëmb ay daara internat école francaise ak arabe di jàngale alxuraanul karim bañ mokkal ko di yar ci yarub lislaam sëriñ abdul ahad Bousso di nitu daara jànge fii ci senegal ak ci réew Mauritanie moo taxawal fondation bi daaraam ju njëkk mu ngi ko taxawal ci atum 2006 ci ndigalu sëriñ saalihu mbàkke ci ndimbalul sunu boroom nag moom moo nu xiir ci bëgg alxuraan bëgg daara ak bëgg bokk ci ñi nga xam ñooy dundal daara suñu borom xiiroon bi ñuy ñibbisee la ñu yàlla def ci sunu xel ni ñun dañoo war a jàngale dañoo war a samp ay daara bi may sanc daara maa ngi ko sanc ci juróomi xale yoo xam ni dañu ma leen a joxoon ma doon leen dénkaane ci daara Sëñ Saaliw yàgg ci laa mujj ne nag man damaa war a yor daara sanc daara jëli ñooñe tàmbalee leen ci nekkuk Sëriñ Saaliw Mbàkke amee ndigal li ci moom mu ñaanal nu ci boole ci daara ji soosoo ci atum 2006 ci weer wu njëkk wi ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñett ya biñ koy sos ñu ngi tàmbale woon ci juróomi dongo ku ñuy wax sëñ Malick Ndiaye ak sëñ Modou njaay rakkam ak beneen sëñ Mouhamadou njaay ak ku ñuy wax tuuba Sarr ak Mourou saar ak ku ñuy wax Seyxuna Silla bu dee man ak ku ñuy wax Seyxuna Buso juróom benn yi daal ñoo ñi nga xam ne ñoo sosoon daara ji te njëlbeen ga sëriñ Abdou bu Bousso benn daara rek la yoroon ci ndongo yu néew ak nekkin wu métti lool. daara ñi nag mu ngi sosoo ci comme bërëb bi buñ ko misaalee nii mu xaw a yànji lool waaye wuute nag booba ndax booba ñaari néeg kese moo fi nekkoon sama néeg man jàngalkat bi ak néeg gone yi doon fanaan ak benn mbaar moo xam ne mbaarum gàttax la woon. yàlla def na nag bu 11h musaana jot rek naaj wi day tàmp suñ kaw ba daan waaye nag lépp cosaanam moom noonu la baaxoo. mu boo xam ni dafa boole ay daaray alquran muy daaray xale yu góor di nekk yu nekk ci ay barab yu wuute ak daara joo xam ne ay jigéen rek ñoo fa nekk. gone yi ñu leen di indil seen objectif ci ñoom mooy. dañ leen fi indi ngir nañ leen jàngal nañ leen yar nañ leen toppatoo buñ tumuraanke nañ leen yërëm loolu lañ leen indi xale yi ci noonu. pas-pas bëgg ak gëm li muy def moo tax sëriñ Abdou Lahad Bousso taxawal fondation boo xam ne ëmb na juróomi daara ci dëkk bu sell bi di Touba. ca guy Tukulóor gi nga xam ne fa la daara ji cosaanoo ca daarul minan gi nga xam ne jigéen ñi fa la ñuy jàngee guy mbind am na fa daara ju fa nekk. ba tey ci jàkkay Serigne Saliou gi nekkee ci ndaamaatu am na jeneen daara ak corniche kër Serigne bu sa Dieng di fa nga xam ne fa lañ taxawal école française bi ak arabe. ak ca kàdd njaayeen nekk ci yoonu daara jolof bi am na fa daara ju fa nekk mboolem daara yi leen nag dañ leen tënk ci benn programme jublu bi mooy taxawu gone yi bañ mokkal alxuraanul karim ci mokkalinu sell waaye it yar leen ci yarub lislaam waa waaw njàngu fajar moom ma ngi commencé 4 heures 30 4 heures la ñuy dugg ndax 4 sero zéro la ñuy yeete waaye diggante bi xale yi faaw ñu sel mu borosu def yooyu doo nga mën a dugg moo tax 4 heures suñ jullee eh, fajar bu noppi nag ci la ñuy wàcc suñ wàccee diggante boobu la ñuy nopp noppalu ba 9 kon su 9 sero jotee ci la ñuy dugg commencé eh, njàng mi ah, suñ ja suñ duggee 9h it sero la ñuy wàcc suñ wàccee une sero dem dallu ji ndax nit su fekkee ne day jàng ni nga xamee ne dafa am alxisiya ak ya li muy soxla ci ak ruuxam mooy jàng def lu baax waaye yaram wi day am lu mu laaj kon suñ wàccee une heure dañuy wàcc dem sangu ji dem dallu ji ndax ku xale suy toog lu yàgg day sonn waaye suñ wàccee dañuy dem dallu ji seen bàjjeen yi yóbbu leen ci kaw ku ci war a sangu-sangu ku ci war a sensé yéri sensé yéri ñu dallu ba 3h30 euh, duggaat jàng ba 6h ñu wàcc su fekkee euh, marax gi it dañ suñ duggee julli timis ba noppi ginnaaw gee leen di wàcc kon loolu mooy programme bi nga xam ne moom la daara ji yor waaye daara ji yëmut ci jàng kese ni ni euh, saytoo xale yi ci wàllu seen seenu cet moo tax ñu jël fi ñoo xam ne ñoo yor wàllu togg gi jël fi ñoo xam ne it ñoo yor wàllu fóot mi fóotum xale yi lépp kon lii lenn la ci rek ci ci ci ci programme bi daara ji bis ñuy noppalu mooy àllarba ci ngoon alxames ajjuma bu ko defee alxames alxames jooju ak ajjuma suba gi danañ leen jàngal tuuti français ak ak euh, tuuti arab ngir ñu koy yóbbaale ndànk-ndànk loolu mooy programme bi ñu jël si ñoom ay gone ku leen dajale fi barab laaj na taxawu ak farlu ci seenug nekkin dalal seen xel ndax bokk na ci li yombal seenug njàng ci li warul am benn gàllankoor su dee ci wàllu seen dund daara ji moo koy saytu fi lañ koy waajale su dee wàllu seenug cet daara ji moo leen di fóotal su dee wàllu seenug wér ku ci jàmbat dara daara ji moo lay toppatoo yóbbu la hôpital la war lañ la bindal daara ji dana am lu ci jéem la nga xam ne nag xëy na bokk yee dañ ko war a yëg muy wajur yi ñu yëgal leen ko maanaam jën leen a teg ci yoon ba ñu am yar am tamit amu nga amu xam-xam ndax ñaar la yoo xamante ne benn mënta dem bàyyi morom ma xale bu bu amee xam-xam te amul yar tamit jàpp naa ne njëriñam bariwut waaw mu yaru sax te amul xam-xam moo tane ndax ki ñu yar moom te jàngaluñ ko euh, bu jëfee rek dana jëf waaye ki jàng te yaruñu ko moom kooku bu jëfee rek jëf ji am njariñ xale bi fexe mu set di sol yére set fi muy tëdd set ak tamit di leen jàngal tamit ñuy fonk njàpp surtout di fonk njàpp di julli tamit parce que am na ci xale yoo xam ne ku leen bàyyi rek amaana duñ julli sax te yooyu yëpp dafa bokk ñun ci li ñuy bàyyi xel ci xale yi. ñoo leen di saytu seen wàll lépp daal sangu bi ñoo leen ciy saytu boros bi noonu euh, ak tamit ku ci feebar tamit ñu gis ne ku ci feebar tamit dinañ la yóbbu fañ la war a yóbbu. mu ci bureau bi bu ñëwee foofu nag ki nga xam ne moom moo fi nekk bu jaay bu fekkee ku ñu yóbbu hôpital moom moo ko yóbbu. daanaka maanaam njàng moom mënta dox te wér-gu-yaramaan àndu ci moo tax kenn bi ñuy ñëw fii nii euh, suñu taxawaay nekkutoon maanaam wàllu yor garab ak yu mel noonu waaye bi ñëwee fii nii sëñ bi maanaam ci bëgg lu baaxam mu fexe maanaam ba intégré fii nii wàllu santé nga xam ni ñun dañoo yor suñu garab bopp nga xam naa fii balaa xale bi di ñëw sëñ bi day gëstu. ba xam am feebar yi mu am ak yu mel noonu buñ ko xamee daal di ko tënk teg ko fenee buñ dem ba commencé feeñ euh, bàjjen yi ñoo ñëw fii signalé ma ko buñ ma ko signalé mu xool bu fekkee lu jar yóbbu hôpital la ñu yóbbu ko hôpital bu dee loo xam ne xëy na mën nañ koo jox maanaam garab mu calmé wu incha allah ko noonu. fondation Siratal Mustaqim am na école française ak arabe ñi mokkale ci daara ji ñoo fay wéyale seenum njàng jëmee ci français ak arabe. lépp tënku ci programme bi nga xam ne moom la nguur gi taxawal ci réew mi di Sénégal waaye ku ci génnee ci daara ji cycle primaire bi daanaka ñetti at dong nga koy def. ñi fi ne xam nga comme li ma la ko waxee ci jël benn maanaam ci daara ji lañ bàyyeeku ci daara siraatal mustaqim nga xam ne ne foofu lañ nekk ba mokkal alquran parce que day programme bu diis boo gisee ñu daxañ ko ni programme bu diis la dadul dul programme caaxaan dafa diis ku mokkalal alquran attanoo ko parce que euh, dañuy boole maanaam xale bi. ci cinq mois lay jàng CI programme CI ñu évaluer ko ci beneen 5 mois tamit lay jàngat encore programme euh, CP nga xam ne loolu lañ boole mooy premier étape su fa jógee na buñ ko évaluer na ba mu jógee fa day ñëw ci deuxième étape deuxième étape boo ko déggee mooy C1 C2 waaw cinq mois yu njëkk tamit C1 lay jàng cinq mois yu mujj yi mu jàng c bu fa jógee dañ koy évaluer bu jàllee apare ñu jàllale ko ci troisième étape. waaw troisième étape na am nañ ñoo xam ne ne wax dëgg yàlla ren def nañu examen waaw école sëñ Massamba la nekkoon école sëñ Abdourahmane lañ nekkoon moo nekkoon seen centre ñu ngi xaar résultat sax di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfeex bu baax a baax a baax. mbir yi ni muy doxee mooy cinquante cinquante la maanaam buñ bu français bi xëyee huit heures ba onze heures moom mooy jàngale huit heures ba onze heures. nee na bu ñu génnee onze heures la ñuy génne récréation ba onze heures et demi onze heures et bi ñëw onze heures et demi ba quatorze ñu wàcc. waaw noonu la ñuy alterner nga xam ne ne fii cinquante ci arab cinquante français ñoo tolloo waaw. at mu jot école franco arabe bi day def ay résultats yu baax lool. waaye ñi daan dem Mbàkke sax ñoo dañ jël premier ci essai yi nga xam ne moom lañ daan def foofu ak compo yi nga xam ne moom lañ daan def foofu am na am naa ci témoignage parce que am na ci ñoo xam ne ne wax dëgg yàlla maa leen yoroon foofu sax ci ci école Fallou Galas franco arabe Fallou Galas wax dëgg yàlla mais ñoom ñoo daan jël premier ci classe bi te ba pare ñoom dañoo tëboon waaw dëgg yàlla di di leen di xamal alquran lu am solo la ci xale su ci su jiitu ci dënam rek daanaka macha allah lépp doon tawféex ci moom incha allah. Euh, xale yi comme niñ ko sos sëñ bi da cee boole woon lépp ndax xale yi daan jàng niñ daan jàng alquran ji ne lañ daan jàng tubaab bi ba yàlla def na faw ju fi fi njëkk a génn euh, nga xam ne sayxuna mu juumul ñi fi njëkk a génn defuñu directement def classe yu ndaw yi ñeen ñi CM2 CM1 lañ ta ñenn ñi CM2 yàlla def na sayxuna moomu sax mi fi njëkk a wartoo alquran. am na bac daaw ci eh, ci eh, Mbacké 3 lycée Mbacké 3 mu woon mention la àndaloon ba léegi ma nga France di di di yeggale am njàngam bi ma koy mujj dégg wala dina première année ba mu ngi deuxième année loolu sant yàlla bu baax. Cheikh Ahmadou Bamba Sylla mi ci daara ji la jàngee ba mokkal alxuraanul karim jamono bi am na baccalauréat ba mu ngi jàng anglais. My name is Cheikh Ahmadou Bamba Sylla. I am a student in the Institute of Islamic Education Dar Sirat al Mustaqim. Nowadays Even if Quranic schools are very important in our society, they face a lot of difficulties to survive. And those who hold this Quranic system fight night and day to better it. However, some people are doing their best to stop its emergency until saying Quranic schools set children. Today, we can truly say that they are wrong. fondation Siraatal Mustaqim ba mu taxawee ak léegi at mu jot ndongo yi fay mokkale alxuraanul karim day yokku ni atum 2020 bi lu tolloog 83 gone mokkale nañ fi alxuraan di juróom-ñett fukk ak ñett ndax daaw ñeent fukk ak juróom-benn rek lañu woon. ndimbalu la suñu boroom ak taw fi xam at mu ci nekk nag suñu borom dogal na ñi fi mokkale dooleeku nañ at mu njëkk mi foog naa ni ci ci ñeenti ndongo wala juróom juróom la ñoo fi ñoo fi noonu ñoo fi mokkaloon noonu lay yokkoon nag di yokk ba ren ji suñu borom dogal na. juróom-ñett fukki xale ak ñett mokkal nañ fi alxuraan ñaan yàlla ñoom ñëpp yàlla barkeel leen atum ren mii juróom-ñett fukk ak ñett ñoo fi mokkal seen lim ñoom ñëpp ci ñi nga bi ñu sañcee daara ji 2006 ak 2020 euh, ñi fi mokkal mi ngi toll ci ñaari téeméeri ndongo ak fukk ak juróom du ko sori bor yooyu du ko sori. ren jii ci atum 2020 bi. ñu war leen jox seeni lijaasa. ci teewaayug seeni waajur waajur yooyu le sax ñu bëgg lañ ci programme bi nga xam ne moom la fondation Siraatal Mustaqim taxawal ak jéego yi nga xam ne sëriñ Abdou Lahad sa da koy def ci yar ak xamal seen doom yi. kon ku mel noonu bu bu bu bu yoree jiite daara nga am tawfeexu sa doom nekk fa war nga see xam loolu bu baax a baax a baax ma xam ne daal nii ñun yàlla de baaxee nañu ci administration éducation lañ lañ liggéey ba retraité euh, xam nañ ni xale xale yàlla may na ko xal moo xam ne. daanaka yow yaa xool rek waaye loo ci mënta def amut te loo ci def daanaka àttan na ko ba tax na ku ni sëñ laat eh, ni ma ko waxee léegi su su noppee ci njàngum alxuraan bi day daal di songu mbirum eh, approfondissement maanaam eh, beqi ba ci bindi kaamil sax ak xalaat nag yeneen xam-xam yoo xam ne gone gi da koy soxla ba tax na sëñ daaraa ngi nii yoo xam ne gone mën na fay dugg jàng alxuraan ba mokkal bindi téere wala mu mu beqi ba sori jàng yeneen i xam-xam yi gone yi jàng ci yeneen écoles yi man leen ca ba nga xam ne at yu néew boo ko xoolee ci lycée yi wala ci collège yi ko fi fekk te fekk boobu ci daal ji la tàmbalee loolu li muy wax ni am na ci ay exemple yu ci am lu baax moom ñëpp a ko ñëpp la war ndax lu baax rek moo am njariñ kon nag ab soññee la ci ñëpp ñi nga xamante ne bi ay taalibe lañu ñu jéem a lu ci lu demee nii rek ndax lépp nag yëfi sëñ bee sëñ bee moom alxuraan moom moom moom moom it gannaaw moom ak sunu borom waaye nun suñu bopp Sëñ Tuubaa lañ ko jox kon nag nañ fas ne sax ci ndigal moytandiku tere te jéem a liggéey ci alxuraan ndax alxuraan kat mooy li nga xamante ne bi bu fi bu fi bu fi desee rek ñu am jàmm waaye bu fi jógee ñu am ay musiba yi ngay dégg yëpp ñàkk a toppatoo alxuraan la wala ñàkk fonk alxuraan. fondation Siratal Mustaqim am nañ ay projet maanaam ay naal yoo xam ne ci kanam la nekk. bokk na ci am complexe bu yaatu boo xam ne dañ ci dajale mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekk ci fondation bi ci benn bërëb ngir bokk na ci li gën a yombal seenu liggéey. bi yàlla dogalee mu nekk ci loxol Serigne Thierno Bousso nekkoon xalifatu Serigne bu Bousso ñaan suñ borom dolli ay yërmandeem te tas suñ ci barkeem moo ko yëkkati woon jox ko Serigne Abdoul bu Bousso mu toll ci 40 mètres carrés mu nekk procès yoo xam ne moom la daara ji amee. ngir taxawal fi daara joo xam ne danañ fi liggéeyal yàlla muy barab bii ñu taxaw ni ngeen gis ko. loolu tey doon la ñu gënal mooy ñu am benn barab boo xam ne nii bagante yi duñu ci fekk suñ xëyee rek dañuy xëy ci daara ji noonu ba dallu jot ñu dem dallu. loolee nag du projet bu ndaw jot nañoo teg xeer bi ci bërëb bi nga xam ne moo nekkee ci yoonu daaru muy liggéey bu yaatu boo xam ne la mu laaj bëri na lool waaye sëriñ Abdou Lahad Bousso fas yéene cee taxaw lépp ngir bëgg alxuraanul karim am yéene def ko ci gone yi boole ko xam-xam waajal leen ngir ëllëg taxawal ñoo xam ne dañuy mokkal alxuraanul karim xam seen diine am xam-xam doon ay technicien ay ingénieur ay expert ci fànn yépp loole nag mën naa ne sëriñ Abdou bu Bousso ci la nekk te gëm ne yàlla mën na ko sottal وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا الشيء